tey dañ fi ñëwoon rek comme ni ma ko waxee léegi def euh, comité local de développement ngir waajal euh, màggal euh, ak sant sëriñ Modou Awa Balla dëkk bii nag di Kuré Dior ñoo koy def at bu ne nekk ci commune Koul donc ñoom mm, bis bi nekk na bis bu bu rëy ci ñoom mais tam nekk na bis bu rëy ci taalibe yi duñ manière générale ndax bis bi dafa nekk bis boo xam ne dafa yombal dafa yomba jàpp dafa yomba ànd te ki ñuy liggéeyal dafa yomba liggéeyal ndax moom boo waaxoo jëm ci moom rek da lay songu te chef de service yi nga xam ne ñoo fi daje ñoom tam miin nañ leen yàgg nañ fee ñëw taseeg noonu liñ fi waxoon daaw buñ toogee fii di ci jëm ci cant gi yaakaar naa ni bu cent cent pour cent yombul waaye quatre vingt cinq pour dix pour cent amoon nañ ko daaw. chef de service yi fi nekk ñëpp ku ci nekk prononcé wu na wàllu sécurité incha allah commandant brigade gis ngeen taxawaayam donc ci zone bi yëpp gis ngeen ni muy defee ay patrouille guddeeg bëccëg mu ngi sur le terrain donc jël na ay dispositions pour que incha allah bisu màggal gi ñu sécuriser bu baax a baax a baax événement bi sapeur pompier la même chose ñoom it daañu ñëw pour accompagner nit ñi service di d'hygiène ñoom également daañu ñëw pompe dëkk bi bien avant l'événement nga jël eaux et may nañu leen autorisation pour que bépp bant boo xam ne bant bu dee la boo xam ne mën nañ koo jëfandikoo ci togg ak yooyu ñu également ñoom ñu jëfandikoo ko élevage jël na disposition ba nga xam ni bis ba lépp lu fi war a defar ci ndawal balaa ñu koo defar mu xool ko buñ ko defaree ba pare it mu xoolaat ko parce que tamit loolu dafay nekk ci wàllu sécurité jëm ci wàllu population bi. santé médecin chef bi nga xam ne moo nekk district sanitaire moom it nee na dina jàppale comité d'organisation bi ci journée de consultation médical gratuite. mais en même temps may leen ay médicament ba pare ci jouru màggal gi daañu fi fexe def fi benn poste médical avancé boo xam ni dana jàppale population yi.